waa Kaggu gannaaw euh, bañ jógee ci ki nga xamante ne moom mooy open press euh, zootechnique mi nga xamante ne moom mi dafa bëgg a jël li nga xamante ne moom mooy président CNG moom la bëgg déposé gannaaw ba fexee ay kaddu euh, kii ñu taxawoon nag moom mooy ki nga xamante ne moom mooy Medoune Diouf bu TFM bu Mprod ndax ñëpp xam nañ ni Balla ak ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux combat boobu noonu suñ papa Gaston moom moo ko tëggoon mu am nag ay quelques problèmes yoo xamante ne ñu bari nag ba léegi naan. comme que Tapha Tine ak Boy Niang taxaw na mais ñu bari daal d'accord ñu woon ci combat bi damay euh, wax ak ki nga xamante ne moom mooy am euh, Médoune Diouf mu ne moom it nan la gisee loolu noonu nu ko gisee am Médoune maa waaw sama doom Fatima ngi lay fay. ñëpp gis bi li coow li Gris Bordeaux Balla gis nañ ni Gaston euh, li nga xamante ne problème bu mu xaw a amat sax ak Gris Bordeaux bi ñëpp naan combat bi du am ñi naan combat bi dina am mais loolu yow nan nga ko gisee est-ce que lamb chaque jour coow yi. Euh, dafa bari coow torop torop torop ak combat bu mag boobu est foofu mënoon nañ faa egsi non Fatima lii ñuy def nii mooy làmb mbir la moo xam ne nee nañ la ci coow lay tijjee ci coow lay tëjee waaye coow li lu mu bari bari bari bari après ci waxtaan rek lay mujjee te yaakaar naa ne foofu vraiment nañu waxtaan quoi loo xam ne joxe nañu avance ba pare làmb ji commencé nañ ko pro commencé na promouvoir boppam. donc man daal li ma gën loon mooy kaawu Fass ak Gaston vraiment yàgg nañ yàgg nañ lool xamante nañ su ma ñoom daal ñu toog def yi fu kilifa def yëfu mag waxtaan trouver terrain d'entente ñu ñu ñu dem quoi ndax tey jii dina metti trop trop trop Balla Gaye mu taxaw ñu ne ko yaa kii la jékki-jékki ñu ne ko dootoo dootul yaa Gris donc loolu le grand perdant sera kii sera Balla Gaye sera Gris sera Gaston kon ñoom ñëppay perte te làmb heure bi soxlawul loolu man daal li ma gënaloon daal mooy ñu toog waxtaan parce que lii yëpp man je pense que euh, Covid bi tamit bokk na ci parce que lu toll ni Covid xamoo Gaston jël benn somme xamul moom kañ la làmb jooj di am ku la wax tey jii deux mille vingt et un làmb dina am xamul dafa jël rek am confiance ci yow jox la dog njëg donc nag daf may dolli laat du ma la dollil loolu ku toog waxtaan ku mën a joxe 10 millions kañ mën a joxe leneen toog waxtaan la rek leneen amu ci lu dul toog waxtaan. mais combat bi tey bu yàqoon te Balla Gaye gis nañu Boy Niang lañ ko doon proposé Boy Niang am na combat moom kon kat mooy euh, adversaire am. man de gisatuma adversaire u ba Balla Gaye adversaire potentiel u Balla bu doon indi coow neex bu weesoo bu weesoo Boy Niang Gris doo la woon. donc ñaar ñooñu bu ci bëriwul ak kenn moom na jéem a ñibbi rek Casamance benn yoon toog fa àdduna amul benn solo. est-ce que Balla loolu dina neex kii mais musiba la loolu du arrangement làmb baaxul ci làmb Balla Gaye mu mu année blanche te mu am ñaari potentiel adversaire kenn ka am kee nara toog ñu naan Gris dina bëree kii Gris Bordeaux kan lay bëri la kan. tamit kan bu bëriwul ak Balla Gaye kan. ndax Ama génn. Luc Nicolaï génn na. mais Luc Nicolaï génn na Luc Nicolaï même bu génnee un am na luñ ko daan yuñ ko teg yu mu war a rembourser loolu beneen xalaat la est-ce que moment bii làmba ngi ci xelam donc combat boobu tamit troisièmement Covid bii kañ la làmb jooju di am. kañ la jàngoro ji di jeex xamoo donc képp ku dugal xaalisam ci làmb actuellement da gëm yàlla rek waaye vraiment euh, sa xaalis boobu xamoo sax fi nga ko dugal ndax feebar bu kenn xamul kañ lay jeex ah man de du ma ci dugal sama xaalis. merci kontaan naa ci yow. jërëjëf wasaare. waa kàggu ñii nga gis nag wax dëgg yàlla bu doon bu dul ñii wax làmb di reporté làmb du am suis désolé. ñii ñaam xam te ne ñoom ñooy lépp ñi ñooy star yi nag dañ naan bëri ñooy star yi mais ñi ñooy star yi ah tey nag wax dëgg yàlla dama am contentement pour mën a waxtaan ak ñoom ndax ñii moom macha allah kenn ku nekk fa nga nekk yaa ngi fay bay sa waar pël bu rafet sama mag sama xarit nga xamante ne borom Bawol TV moo daan sama chéri ak ah, sama chéri Fadel borom Dakar Buzz ak Elage borom 200 Sénégal Buzz mais nag ah, xam nga laa bëgg tey ñu waxtaan ci muy combat Balla ak nga xamante ni moom mooy Gris Bordeaux ndax ñëpp xamoon nañu Balla Gaye ay Boy Niang moom la gaa yëpp bëggoon ñun ñii di waxkat yi sax moom lañ bëggoon combat boobu suñu papa Gaston problème am na ci yéen nan ngeen gisee loolu ba pare ap élage waaw Fatma ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokk internetu wasaare lamb di leen bëggee bu baax a baax a baax yow it di la bëggee ah ndax ni nga koy waxee rek yow kenn du yow yow yaay star bu mag bi waaye dañuy ñëw sa question ah comme ni nga ko waxee Balla Gaye Gris Bordeaux donte ne nit ñi Balla Gaye Boy Niang lañu bëggoon doon ko xaar waaye Balla Gaye Gris dafa nekk lamb joo xamante ne foog mu ñu confirmer jooju lamb confirmation la parce que xam nga nit ku commencé benn affaire te yeggul moo dox ci làmb jooju noonu foog mu yegg pour amateurs yi nga xamante ne ñooy dund làmb ñooy xam lamb mën a savourer lamb ci combat boobu noonu. combat boobu bu amul Balla Gaye waaw combat boobu bu amul Balla Gaye mën na bëre ku ne parce que fu mu nekk nii xam nga affiche yi dafa génn ay adversaire am ku ci ne génne nañ sa affiche ne la am nga combat. kon combat boobu noonu bu amul a ah, sama yaakaar ragal naa Balla toog xaar de bu dee ñeneen gars yi jël nañ avance. Ah. waaw li sama gis-gis moom li arrangement bi mooy foog làmb jooju dox waaw. nice na moo daan ta borom arène bi maa ngi lay nuyu. waaw ah, sama séeri fan mi. waaw Balla Gaye Gris Bordeaux de wax dëgg yàlla man de boo ak gars yi gis-gis quoi. parce que gis naa ne combat bu neex la quoi. ma gars dañ ne Boy Niang lañ bëgg ak Balla Gaye même man Balla Gaye Gris doo neex na ma. parce que combat bu njëkk ba donte nul la mais Balla Gaye moo am victoire par avertissement da ngay gis na combat bu neex la kenn jéppiwu leen xeex nañ bëri nañ leen lu nekk am na sa tamit wax dëgg yàlla man gis naa ne buñ ko constaté comme problème am na nii nag man bu ma sañan nan régler problème bi quoi lenn laay am lu may wax si Gris Bordeaux tuuti rek parce que am naa droit wax si moom ndax moom mbër la te am na licence te ku am licence ku nekk nit ñi am nañ droit wax si yow ndax si laa ngay yëngul dëkk dafa metti trop tey fi mu ne nii par exemple Fatma bu fekk ne da may may ko combat war maa fay 600000 boo ma joxee 200000 wala nga jox ma 150000 dogal njëg dinaa ko jël parce que Fatma làmb ji tëj na te CNG bi ubbiwul nañ waxante dëgg kon Gaston Mbengue bu daggee 10 millions ci li mu wax dag dog njëg jox ko ko normalement xaw ma nu mu demee ci côté ak côté waa Fass mais war nañoo mën a téye loolu lu bon bon war nañoo mën a xool ci seen nawle bee di Balla Gaye daanaka dégguñu mu wax. kon normalement man sama xalaat bu gàtt laa waxee da xaw ma giri nu mu ko gisee mais 10 millions yi a na koo mën a téye comprendre Gaston ci situation bi nga xam ne moom la réew mi toll parce que kat du lépp lañ man Gaston Mbengue warul mën a jël lu bëree bëri du ko jox Gris Bordeaux 10 millions yi sax bëri na pour man. pour yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb kon ni ma ko waxee rek Sunugal 24 tey nag ah, kii Babacar Diome tey ñu fas yéene waxtaan ak moom donte taxam mayuñu ko sax mais ci li nga xam xamante ne moom mooy actualité ndax gis nañ ah, tey ki ñu seet si mu géotechnique dafa bëgg dafa dugal candidature am pour jiite li nga xam xamante ne moom mooy CNG gis nañ Keba Kanté gis nañ Tyson et tant d'autres bari nañ euh, loolu lan nga ma ci wax ba pare. maa ngi lay nuyu Fatma Dia di nuyu ñëpp ñi nga xam ñu ngi suivre ci Sunugal 24 ah ak fi nga xam ne moom mooy wasaare TV bu ñu nee Sunugal nag suñu xelal suñu xel lay dem ci suñu frère euh, Diaw Fara ah, ma koy bëggee bu baax a baax di nuyu tamit waa wasaare Fatma yow Bachir ak ki nga mooy Jili ak équipe bi nekk yëpp di nuyu sama rakk ji Thier waaw loolu nga laaj moom maanaam CNCR lañ ne le 30 octobre euh, ki nga xam ne nii moom moo di. docteur Alioune Sarr mandaam day jeex te bu jeexee jàpp nañ na xëy na ci li ñuy am comme ay xibaar du ñu ko renouveler waat bu ñu ko bu fekkee nag du fi nekkaat kon defe naa il mm-hmm. ngi dégg moo tax nag ñu ñuy dégg ay tur boobu ba tey dégg nañ na moom jàpp ne mën na koo jiite Tyson moom waxul ne mën na pour jiite zone technique tamit nekkoon mbër tey mu ñu jëngutu ci mbirum ko jiite bëgg na mais nag affaire bi du déposé candidature parce que amul élection il faut ñu fàttali que mbirum arrêté la arrêté ministériel la arrêté bi nag kenn la muy ki nga xam ne moom mooy ministre des sports Matar Ba moom mooy xool ki nga xam ne nii jàpp nañ ne war na mën a jiite làmb ji yaa ngi dégg mais it terewu ko bu ko neexee am na droit waxtaan ak waa làmb ñu waxtaan ci biirub néeg xool ki ñu jàpp wala équipe bi ñu jàpp ne ñoom suñu leen fi tegee dinañ def lu raw li fi Alioune Sarr defoon parce que ak lu ñu la mën a wax tamit Alioune am na liggéey bu mucc ay bu mu fi def dafa fekk ne nag olof a ko wax suuf yaa ngi dégg lu ma la wax mënu yàlla mi ñu moom sax defe naa ne deful lépp lépp lépp lépp lépp yaa ngi dégg il faut nit ki am lu mu def jéem ay effort pour mën a am dara kon yaakaar naa mbir mi noonu la demee mais lu ci am daal ñun li ñuy ñaan en tant que ay sénégalais en tant que ay nitu làmb dañuy ñaan yàlla daal kii jiite ëllëg làmb ji mu nekk ko nga xam ne nii daal kii gën ci waa làmb lay doon yaa ngi dégg loolu la ñuy ñaan quoi tey làmb ñu bari dañ ko doon euh, li nga xamante ni di ko diingat mhm. tey ñu dem ba benn instant gis ne làmb euh, bari na coow kenn ku nekk muy ñëw ne dafa bëgg a euh, jiite làmb loolu nan ko koo déggee ak noo ko gisee. waaw am nañ si droit parce que c'est des Sénégalais ñu dëkk ci réew mi du dund làmb di ay doomu Sénégal te làmb di suñu cosaan du basket du volleyball du handball. du football sport national la lu ñu moom kon defe naa sénégalais bu ne am nga droit taxaw ne nañ ma jox ma jiite làmb ji laaj na nañ ma jox ma jiite na fekk yow mu méngook naka yow la ngay laaj leer na lii bu ñu la ko joxee nga doxal ko mais tamit bu la bëgg a bëgg a wax nii rek wala bëgg a laaj tax di laaj non non man Babacar su ma amee yàqin ci sama bopp mu wóor ma ne li ñuy joxe mën naa ko jiite ah am naa capacité am naa niveau bi am naa droit ne nañ mën naa ko jiite yaa ngi dégg waaye nag du question que ni damay wax rek ne mën naa ko jiite mu leer ma ne man aw ma compétence bi aw ma li nga xam ne personnalité bi wala nangam yooyu yëpp dafa jar bàyyi xel ba nga xam ne nii daal euh, mën a mën a nag boo gis da dul wóor da ngay bàyyi moom bañ ne na yow la loolu dafay gën a wóor waaw. beneen bi mooy ñu gis ni coow li nga xam te ne moom moo am suñu papa Gaston ak Gris Bordeaux ndax ñëpp xam nañ ni bale Gaye ak Gris Bordeaux taxawoon na ba léegi mën nañoo jàpp ne taxaw na ñu gis. fan yi wax ji ñi naan combat dina am wala du am ay problème yi 10 millions avance mi ne dem mais loolu yow nan ko gisee euh, làmb ji parce que tijjeegul di ñang daan mbas mi mais dafa bari coow. waa xam nga làmb ji tijjeegul waaye promoteurs yi nga xam dañu jël seen xaalis di ko yi pour man ñooñu dañ leen di jaajëfal ak promoteurs yi joxe woon te jotu ñoo tëgg seen i journée parce que promoteur dama naan moom jikko baykat lay yore quoi parce que mooy ja baykat mooy koo xam ne day ruuj faru di xaar yàlla taw ngir mu bay yaa ngi dégg ci promoteur noonu lay def jël xaalisam jox ko mbër di xaar di xaar saison ubbi wala ñu jàppal ko date même bu dul corona bi promoteur yàgg day joxe xaalisam di xaar date di xaar nangam te ci diggante bi lu ne mën na fi am diggante bi nag mbas mi ñëw na affaire combat yi taxaw am ay promoteurs yoo xam ne yu mel ni Gaston bi ay Pape Thialis Faye ay Baba Diaw Thiam production ak yeneen promoteurs yoo jël nañu ay avance jox ko ay mbër yaa ngi dégg fas yéeneen bëreloo bari na ci ay promoteur ay ñoom Dieye Sène Fallou Ndiaye bari na ci mais nag loolu su amee defe naa ne ah li ñuy dañuy yaakaar parce que ab jaam yaakaar la ba la am yaa ngi dégg ab jaam yaakaar la am ci ñaan boromam pour di ñaan yàlla mbas mi jeex ba ñu mën a bëree mais bu dee ci diggante Gaston Giri la damay wax ne ñoom ñaar ñëpp ku ci ne kilifa nga si làmb parce que li tax mooy Gaston su jumul la ñëw ci làmb comme promoteur Giri Bordeaux ñëw ci làmb comme mbër kon ñoo bokk carrière ñoo bokk génération ci côté boobu Balla waa luy adversaire a yàqu man loolu laay ñaan ba ku ne joxe nga sa kàddu ñi leen yilif joxe kàddu kon defe naa Gaston mooy tëgg bëgg na am na lu mu jot a génne kan man Babacar damay ñaan yàlla daal combat bi am ñu mën ko bëree mu jeex quoi waaye nag bu fekkente ne dañ ne daa yàqu te man yàqu gën a lu ma ah Balla Gaye am na yeneen adversaire Eumeu Sène a ngi fi Bombardier ngi fi ñoom ñëpp dafa bëri ak ñoom waaw uh-huh. te ku ci ne da ko daan te soxla na bëri ak ñoom ay revanche parce que defe naa làmb ku la daan di nga bëgg a mais nag maa ngi ñaan encore une fois que ni combat mag Gris Bordeaux ak Balla bañ a yàqu mu réussir quoi làmb ji tëj na le 31 octobre la ñuy élu mais instant bi yow Babacar nan nga gis làmb est-ce que am nga yaakaar tey saison bu ci jiyee di nga gis ay changement yoo xamante ni yoo xamante ni da nga naan non est-ce que lii làmb la est-ce que am nga yaakaar. waaw non am nañ ci yàqin changement moom du mën a ñàkk am parce que li tax changement di am at mu ne ak la cay xew bés bu nekk ak la cay xew moo tax ba nga xam ne li amoon daaw ak li am ren du doon benn dañuy ñaan yàlla nag li am li am. liy am ni suñu kanam yàlla na dàq li fi jaaroon lépp barke bi sallallahu alayhi wasallam que li tax ñu wax loolu mooy que ni am nañ yàqin que ni parce que combat yi nañ gis muy taxawee ak ambition yi promoteurs yi am ak ñi demoon dikk gis nañ ay GFM dellu siwaat yaa ngi dégg gis nañ Equivox Arena gis nañ Gaston Mbengue dikkaat Pape Thialis Faye dikkaat yooyu yëpp buñ ko boolee yaakaar naa man nañu am yàqin ne saison bi dina gën a neex bokk ba boole ceeg nag ñi fi nekkoon nga xam ne ñoom it boobu ba tey ñu ngi def effort yaa ngi dégg kon defe naa loolu boo ko boolee ak itam yàlla mën def balay boobu ci diggante bi équipe seen CNC bi changé ñu yaakaar ne kon loolu lépp su amee nag dina gën a tax làmb am beneen alir gën a mën a jóg jëm si kaw quoi mm-hmm. waaw cant ak ngërëm ñeel na la yow chaque jour bu la dekkee suñu micro dañ ciy wax yéene ak lépp rek pour bëgg waa gars yi kontaan en tout cas kontaan nañ ci. que on est ensemble ñoo far yaa ngi dégg ñu bokkuteen ñooy laxasoo goj yaa ngi dégg te olof ne na pittax ak xat yi ñoo bokk ndey parce que la leen boole mooy yel ba ñoo bokk bi yel kon ñun ñoo bokk li ñuy liggéey ñoo bokk métier bi yow tamit ngay suñu jigéen di suñu rak